Of course, the country's 21-day lockdown has impacted on small businesses in the country and owners are worried of the situation. But the government have formulated supporting measures to minimize, to minimize the uh, pressure. Let's have more of that in this report. African entrepreneur Angeline Holman opened her laundry franchise in January. She never thought it would turn into a global pandemic affecting life and the world's economy. It's very stressful because I'm the only owner, I've got no financial assistance, it's, it's me, it's all my savings that I've invested into it, I've got staff that I need to look after. So it's quite stressful wondering, I'm not even paying myself a salary. So it's, it is quite stressful knowing, you know, there's no money coming in and the money that I do have has got to last. Homan started making masks when the first cases appeared in South Africa, but she's had to halt that too. I've made a few, but there hasn't really been a demand for it from from my particular business. I think people did it quite a while ago, a couple of weeks ago, and that's when they managed to sell it. I didn't want to do it to make money from people in a sense, but obviously just to survive. Government has set aside around 30 million dollars in relief for SME sector, but Holman says she doesn't need to tap into the funds just yet. I think there's other people that are in a dire situation more than me because I only have two staff at the moment. You know, the, the vendors on the street that are selling food that, that really are struggling and have got grandchildren and stuff to feed. I don't have children, I'm very fortunate, I'm a single person. It's going to be a very stressful time for small business owners. Many don't know if they'll be able to open their doors once the 21 day lockdown is lifted. More worrying is the sector accounts for a third of the jobs in the formal market, and this could be a further blow to South Africa's staggering unemployment rate. The impact of coronavirus hitting, hitting uh, small businesses in uh, South Africa there, as you uh, just heard. Um, voilà euh, mu ngi nii euh, coronavirus ay mbiram amul fenn pour mu bàyyi. Mhm. South Africa tamit euh, business yi daw yi fu mu nekk nii commencé nañoo yegg li nga xamante ne mooy métit bi ci seen business yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi ndax réew mi tamit dañ jël li nga xamante ne mooy décision 21 days lockdown mooy dañ tëj ñëpp ku ñëpp dañoo nekk ci biir nit ñi duñ génn te loolu tamit foog mu affect business bi loolu tamit beneen mbir la. waaw dafa xew nag si àdduna bi yëpp xam naa ne moo tax foog ñu foog hmm. ñu muñ rek waaw foog ñu rek parce que dafa xaw a xam nga moo tax nit ñi man sax dafa ma day jaaxal nga gis lii yëpp ba pare ba léegi still naaw mun loo nangu ne sax lii dafa am parce que lii lu du caaxaan loo xam ne ne àdduna bi yëpp la yëngal ñëpp si am problème ba léegi still na am na ñu nga xam ne seen bopp yi li si nekk mooy ne lii ay caaxaan la te loolu dafa ma day jaaxaal trop hmm. te yaakaar ay caaxaan waru mun a daj na àddina yëpp. loolu moom yàlla sax du ko nangu. Mm-hmm. soo mu nekk lu sérieux loo xam ne ni tam mm, réew yi yëpp jël nañ ku nekk yaa ngi ut sa pexe pour gis ne yéen am na looy mun a def ay fan pour gis ne feebar bi dina wàññeeku te nag si ay pexe la si feebar bi parce que euh, comme que ay nit yi jaxasoo mooy tax mu law nit ñi ne ku nekk si toogee dina ko dina tax si am nga. système bi mu nekk am tuuti waaye daal du yomb nag waaye métti na nag waaye xam ne lu la dal rek moo dal àddina bi yëpp te kon foog ñu muñee ko noonu rek yaa e-, exactly euh, mu ngi noonu euh, Mariama business yu ndaw yi moom ñu ngi ñu ngi commencé di di jaaxle euh, foofu ci South Africa ndax government gis nga kànnaar yi dañ tëj nit ñi diñ génn place yi yëpp dañ tëj ñoom nag yëf yi mu ngi commencé di di di di di di seen kaw waaw coronavirus bi moom comme néew ñu doole sañoo see gën a sonna ñi nga xamne sen sen am am melut nonu especially small business yi hejna na jaaykat yi sax ñom du len gaaw affect wala sax du len affect mm. waye comme ñi nga xamne mën na am jakati kurusi yek ñi yore raba buti boutique mbaga ak yoyu nonu ñoo ñep dina yegg metti bi parce que dañ leen ayé dox yi sa, so nyuwe léegi su fekkee ya ngay dox sax so sa nit ñi duñ la welcome sax ken du jënda parce que dañ lay wax né ñaata kër la wër especially comme Gambia nga hamne. ñu ngi am case of recent bu nga xam ne kooku yàgg na si dëkk bi fii nii yooyu noonu soo fu mu nekk comme loolu mu ngi indi panic attack soo xam naa loolu moo nekk di same thing because South Africa ñoom seen cases yi dafa over high gars dañu am high cases. ah definitely waaw soo soo lii moom mesure bu nga xam ne la comme dañ ko war a jël rek fu mu nekk daal nañ mu ñalante rek ku nekk daal ñu li nga am lu ndaw li nga am nga manage ko fi ba balaa affaire bi di continue waaw am na solo euh, ku ne li nga am nga manage ko loolu dafa am solo bu baax ba euh, tolluwaay bi impact coronavirus foofu ci euh, South Africa comme ni ngeen ko déggee noonu business yi ndaw yi ñoom moom yëf yi commencé na métti seen kaw te ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg a daal nguur gi am na ñu ci taxaw waaye tamit nguur gi bàyyin leen am na beneen taxawaay bu ñu ci am ñoom tamit jël nañ ay policy pour dimbale. ñu mel noonu ñi nga xamante ne mooy euh, dogal yu mel moom foog ñu foog ñu laal leen te foog naa lu ñu wax la rek la nguur gi tamit yenn dogale bu ñu ko jël rek dana am li nga xamante ne danañ ko sooraale. waaw loolu la bu nekk rek foog nga am euh, doole yi ñoo nekkul benn rek. waaw waaye defe naa li amul amul benn nguur nga xam ne yow bëgg nga sa askan mu soona non ku si nekk rek boo sañoon yow sa askan lu ñu bëgg yëpp dañ koo am parce que yow da nga leen di soxla ci ëllëg. waaw waaye nag dafa am lu nga xam ne nii bët du een waaye xam na lu bopp aatan am na lu nga xam ne mënoo ko waaye nag foog nga def tam ba nit ñi xam ne ah kii traité na def na waaye bëgg na def waaye mënut soo loolu tam def si day bokk waaw. waaw te ah, defal ñëpp tam yombut loolu mm. yàlla moo ko mun sax. def li